premier bataillon d'infanterie la armée bu réewu Sénégal di sargal di delloo yile jàmbaar def ay jàlloore ci àdduna wërngal këpp bataillon bi moo njaboote bépp banqaas bu nekk ci armée de terre. jaar-jaaram kenn du ko nattable moom mi nga xam ne mi ngi daal di euh, gagné li nga xam rek mooy raayam ci li nga xam ne kat mooy toolu xare bii tey jii nag moom mën nañ wax ne ci lu wér te wóor kat moom ndono li wér na. waaye tamit jaar na ci nga xam ne ñooy kat mag ñii ak ñi nga xam kat ñoo fi teew jamono ji mu di yi ñu jagleel soldat yi ñàkk seen bakkan si toolu xare yi premier bataillon d'infanterie ñoo ngi ko samp gannaaw bi Sénégal moomee boppam am lii di indépendance mu bawoo ci régiment bi lëkkale woon tirailleurs sénégalais yi ay ati ati at a ngi nii wàcciwul ba tey sa yoon bi ko taxaw na jóg ay mission wa moo ngi koy amal si biir réew mi ak sa biti réew ci anam gi mu waree tey bi la unité bëri na ay défi yu ñu war a matal ko delluwaat rek comme nañ ko bëggee woon ci programme bi nga xam ne programme bu mucc ayib la daal di yokk aslëf ci yi nga xam ne kat mooy bataillon bii waaye tamit daal di gën a tàllalaat li nga xam ne mooy wàllum tàggatu bi jaarle ko ci ak instruction ngir mën a rek jàmmarloog li nga xam ne daal mooy rek euh, wàlluma nasaxte tamit fexe rek ba daal di euh, méngoog jamono kon tam commandement bi moom engagé wu na daal di gunge premier bataillon d'infanterie bi fexe ba teg ci ay nit yu wóor waaye tamit ci anam yi nga xam ne seen liggéey dina gën a ñoŋ. bataillon bi wane na boppam troupe yi défilé ci kanamu mbooloo bi jébbal nañu it ay neexal. soraay yi ñu gën a ràññee sa boor ba it amoon na xumbaay ak mumbaay lu ni mel di feddali ne armée bi ak askan wi benn bopp la